mais ñoom ñooy kan ba war a taxaw naan troisième mandat ay Alioune Tine ma déggee léegi c'est-à-dire que il était à vos côtés en 2011 il faisait partie de vos figures emblématiques balaa maa dee balaa a nga génne document yi. Alioune n'a pas changé balaa maa ay Y'en ay M23. ma ne n'a pas changé c'est faux. Alioune n'a pas changé ma était coordonnateur du M23. le juin Alioune on l'a tabassé il s'est évanoui il a failli mourir. waaw biiram fay bi nga xam ne moom biiram ñu bu Alioune donc bu Alioune Tine n'a pas changé bu amee ñu changé ñeneen ñoo changé. mais Alioune Tine fu mu nekkoon la nekk c'est des oiseaux picoreurs. piquet piquet moom tàggat lay naaw. li ñu dundee mooy ay man dama def daal woon benn document boo xam ne sur la société civile. Alioune Tine daal bañ ko xamee ba tey ci li mu nekk la nekk ñun de xamoo ñu ko changement. waaw xamaloo ko loolu. waaw ah, ci li mu nekk la nekk.